sama doom dama la yónni ca daara am ndam sama doom yow yor ngalawaay bul tas yaakaar sama doom

alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah subhanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokki daara ji ñi topp ci seen chaîne bi di Daara Koki TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen tatagal <clears throat> di leen ndokkeel ci jaamu yàlla yi nga xam ne nii moom la weesu ñaan yàlla mu dolli ñu tawfiix te nangul ñu yàgg ko fekke te rafetu fekkin euh, di leen dalal ci seen émission bii nga xam ne nii mooy jàng sa diine di nuyu ki nga xam ne mooy kilifa kër gi di Daara Koki TV muy. sëñ Abdul Qadir Seck eh, waaye di ziyaara ki nga xam ne ni mooy kilifa barab bi di njiital liggéey bi di Cheikh Makhtar Naar Lo xafidahullah wa ak ñi koy jàppale ñépp yal yàlla dolli leen tawfiq eh, mbokk yi jamono yi ñu wees yépp ci ay jataay noo ngi woon ci wàllu laab eh, def nañ ci jataay yu xaw a takku waaye loolee taxoon ñuy laab nag wala li gënoon a tax muy julli ci lanu fas yéene tab bi tey euh, ñu lay taayal ko xam naa danañ ci def bala ñoo ñëw ci naka lañuy ñuy danañ ñëw ci julli ci boppam ak euh, taxawaay bi mu am ci lislaam wàccuwaay bi mu am ci lislaam bala ñoo ñëw ci naka lañuy ñuy jullee ak fexe ba julli gi baax ak julli gi bu amee problème nan lañ koy defaree loolu yëpp danañ ci ñëw danañ ñëw ci incha allahu taala euh, yeneen buñ paree ci julli farata yeeg julli naafila yi ñëw ba ci danañ incha allah dan comme ni ñu leen ko digee woon ca ca tàmbali ga danañ ñëw ba ci jullee néew yooyu yëpp bu soobee yàlla fas nañ ko yéene jël mbokk yi julli dafay loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko màggal daf ko réyal mu doon lu am solo lool ci lislaam ba doon sax ab ponk ci ponki lislaam yi maanaam keno yi nga xam ne ci la lislaam taxaw julli def cee bokk ëpp ci solo gannaaw bi nit ki doonee ab jullit nit ki gannaaw bi mu defee li koy taxa dugg ci lislaam te moo di tudd baati seede yi ak fas ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah seede boobu mooy tax nit ki doon ab jullit bu loolu weesoo li ëpp solo li ko borom bi subhaanahu wa taala sant mooy julli ponk bi ëpp doole kon mooy julli kon julli lu rëy rëy la lu màgg màgg la lu am solo la loo xam ne ni dayoom tuutiwul ci lislaam bokk yi li nga xam ne ni mooy tax nit ki doonub jullit jullit ñi sañ koo boole ci seen bopp mooy na nangu di julli borom baa ngi ñuy wax ne fa in taabu wa aqaamu salaata wa aatawu zakata fa ixwaanukum fi diin waaw ñi ñi borom di bi di wax ne ñu xam ne kat ah bu ñu tuubee nangoo taxawal julli nangoo joxe asaka na ngeen jàpp ne seeni mbokk lañ yéen a bokk jenn diine seeni mbokk lañ kon ki nanguuta julli ah jullit ñi dañuy xam ne ndekete kii bokkul ci ñoom kon li lay boole ci jullit ñi mooy ngay nangu di julli julli mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa xamal nañu ne mooy li dox diggante nit ki ak kéefër li dox diggante nit ki doonub jullit ak nit ki doonub yéefër mooy mooy julli kon de loolu mat naa bàyyi xel de ndekete kii julli kookoy ab jullit ndekete ki dul julli kooku ab yéefar la ah loolu mot naa bàyyi xel mbokk yi julli du lu ñuy caaxaane julli du lu ñuy sàggane lislaam dafa soññee waxuma la sax eh, bañ a julli waxuma la sax bàyyi julli waaye sàggane ko rek dafa mën a jural nit ki loraange yu rëy rëy rëy dafa mën a jural nit ki fitna joo xam ne ni mbugalum borom bi subhaanahu wa taala xam ngeen ne yàllaa ngi tëkku ki nga xam ne ni day julli waaye julleem googi jox ko ak jim ko war a jox da koy sàggane borom bi subhaanahu wa taala ngi wax ci suuratul maa'un di wax ne fa waylul lil musalliin alladina hum an salaatihim saahoon borom baa ngi wax ne mbugal mu tar mu metti nee na maa ngi koy waajal ñi maa ngi koy waajal di ko préparel ñan ñiy julli fa waylun mbugal mu metti te tar lil musallina maa ngi koy waajale ñiy julli maa ngi koy xaare ñiy julli maa ngi koy préparel ñiy julli bu yemoon foofu rek day musiba am waaye alladina hum ñoo ñi nga xam ne dañuy julli waaye nag ñoom an salatihim saahuun dañuy sàggane seen julli danañ julli naam waaye joxuñu julli àqam moo tax borom bi subhanahu wa taala néewul julli leen taxawal leen julli la lay wax alquran boo koy topp aqimu salaa nga ciy fekk aqimu salaa wala aqimi salaa waaye sallu déedéet borom bi li mu santaane mooy taxawal julli taxawal julli ak julli nag du benn taxawal julli julli mooy nga julli jox julli la mu laaj jox julli la mu laaj defe ko na ko war a defe defe ko fang ko war a defe kon abdullah ibnu abbas bi muy wax ni alladina hum an salatihim ñoo ñooñu nga xam ne dañuy sàgg ne seen julli nee na mooy ñi nga xam ne yu axirunaha an awqaatiha ñooy ñoo ñi nga xam ne julli daal dañ koy tardeel dañ koy yeexe ba waxtoom génn maanaam heure bu ñu ko sentir rek lañ koy def am na ñoo xam ne nii li ñu nekk du leen julli du leen tax ñu dagg ko bu ñu doon liggéey bu julli jotee du tax ñu bàyyi liggéey bu buñ doon jaayee ko jënd bu julli jote du tax ñu dagg ko ñu doon nelaw julli jaralu leen dagg seeni nelaw ñoom daal buñ defee li ñuy def ba pare lu ca des rek ñu jox ko yàlla foofu la yàlla toll ci ñoom loolu nag euh, ki tax nga tala liggéey ki tax nga tala jaayee ko jënd ki tax nga tala nelaw kooku bu la soxlaa waratoo soxla leneen bu la soxlaa waratoo soxla leneen kon euh, julli màgg na lool julli day loo xam ne nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñuy wax ne as-salaatu nuurun julli ak leer la leer la goo xam ne nii ci xolub jullikat bi lay nekk maanaam kiy julli julli googu day doon day def ak leer ci xolam day dem ba sax leer googu di feeñ ci jëmmam moo tax kiy fonk julli te di ko def ni mu ko war a defee kooku maanaam jeneen jëmm lay doon jeneen jëmmu lay doon day am leerug xol di am leerug jëmm na fekk mi ngi def julli nam ko war a defe julli moom yi mbokk yi dafa bokk ci ay li ko yàlla jagleel mooy ni day far ay bàkkaar day far ay bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa xamal nañu ne maanaam nit ki diggante julli juróom bu jullee ak fi mu julliwaate ñaari julli yi dañuy far bàkkaar yi dox seen diggante bàkkaar yi dox seen diggante feeg nit ki tàbbiwul ci bàkkaar bu mag rek bàkkaar yu mag yi mooy lu mel ne njaaloo lu mel ne rey nit yooyu ay bàkkaar yu mag la feeg mi ngi moytu bàkkaar yooyu bàkkaar yu ndaw ndawaan yiy dox ci diggante bi julli day koy lakk da koy far kon nag te julleeg moroom yi sorewul julleeg moroom mu sorewul moo tax yonent bi ne woon waaw ndax bu fekkoonte ne kenn ci yéen daa am ak dex ci buntu këram bis bu ne mu sangu ci juróomi yoon waaw ndax kooku dana dese tilim ñu ne ko ah déedéet nag kooku moom du mën a dese tilim nag juróomi yoon ku koy sangu ci sa sa dex ci buntu kër gi kooku moom du mën a dese tilim mu ne leen nag julli juróom noonu la mel julli juróom noonu lay noonu lay def ay bàkkaar nii kii di taqale kook tilim ndax ndox mii nga xam ne daanaka du ci jóg julli juróom noonu lay def nit ki ak i bàkkaaram kon mbokk yi julli ëpp naa caaxaane ëpp naa sàggane julli bokk na ci jagle yi mu am mooy yowmal qiyaamati bu nit ki ñëwee dossier am buñ ko ubbee li ñuy njëkk a seet mooy julli li ñuy njëkk a seet ci dossier nit ki ëllëg yowmal qiyaama mooy julli la ñuy càmbar ba xam nu mu baax na walla baaxul yonent bi sallallahu alayhi wa nee nañu li ñuy njëkk a seet ci dossier nit ki ëllëg yowmal qiyaama mooy julli su baaxee lépp baax su bonee dara du baax lépp bon kon nag ah ñëw yowmal qiyaama indi fa jëf yu bari lool yoo xam da nga ko daan sonne ci àdduna daan dimbale nit ñi daan jàng alquran daan lu yu bari xeeti mbaax yépp nga nekkoon ca lenn yàqal la ko mooy da ngaa sàggane woon julli loolu dara jaru ko dara jaru ko moo tax nit daa di jiital li war a jiitu daawar di sonne li gën a mat a sonne kon julli taxawaay boobu mu am la ko nit ki bàyyi xel julli dafa nekk loo xam ne day tax nit ki dootul maanaam def lu bon daf koy të def lu bon daf koy të wax lu bon daf koy të moom la ñu yàlla di wax ci alquran ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli day dox diggante nit keek def safaan wala wax safaan waaye gan julli julli gi nit ki defar moo tax dañu ne boo bëggee sa julli defar la defaral sa julli waaw boo bëggee sa julli defar la di dox sa digganteeg maanaam di julli defar la ba nga baax ba lu bon daf lay të defaral ni ngay jullee moo tax bu fekkente ne yaa ngi julli ba noppi yu bon yi bàyyi ko tëla xootaa xoolaatal ni ngay jullee ni ngay jullee moo jaarul yoon xoolal xoolaatal li nga jox julli yow ndax yaa ngi koy taxawe na nga ko war a taxawe ndax yaa ngi teewlu sa julli moo tax kenn ci euh, mag ñu baax ñi dañ ko laaj ne ko waaw nooy jullee nooy jullee mu ne ah damay jàpp jàpp lu mat sëkk te baax bu may ñëw ci barab bi may jullee damay ñëw ànd ak dal ak wegeel bu may kàbbar damay kàbbar ànd ak wegeel ak teewlu ki may kàbbar ci kanamam muy borom bi subhaanahu wa bu may jàng alquran dama koy jàng ci dal ni borom bi subhaanahu wa taala ñu jàng ko wa rattilil qur'aana tartiila nee na bu ma rukoyee torox lu laa koy boole laa koy booleel wàccee sama bopp ci sama kanamu borom yëg na mi ngi teew ci sama kanam di ma xool bu ma sujootee noonu mokk laay àndal wàccee sama bopp laay àndal toroxlu laay àndal ci sama kanamu borom subhanahu wa nee na nag damay jàpp ne aljan naa ngi nii ci sama ndeyjoor safaraa ngi nii ci sama càmmoñ kaaba gaa ngi nii ma ne ko jàkk ci sama kanam malaakal mawti mi malakul mawti mi nga xam ne moo war a jël sama ruux mi ngi taxaw ci sama kaw bopp di wàcc jekk na ànd ak maa ngi imaginer na samay bàkkaar ma wër ba fees dell julli gii may julli ma jàpp ne mooy sama julli gu mujj nee na bu may julli yii nii laay jullee yii laay teewul lii mooy nekk ci sama xel ci situation bii laay nekk bu may sëlmal dama naan ah sama julli gi mbaa yàlla dana ko nangu nee na damay sëlmal ba noppi di tiit ci yàlla nangu julli gi ak ñàkk ko nangu xam nga kii moom bàyyiwul fenn foo xam ne nii moom xelam dana génn ci julli gi seytaane nag booy julli ñëw na teew moom loo mësta loo mësta fàttaliku dana la ko fàttali foo mësta dem dana la fa yóbbu xalaat yu ne góor ga dafa nekk ak ndongali waaye mi ngi jaay xaal lay jaay ndongalaa ngi toog ñuy julli ndongali topp ci gannaaw góor gi ñuy julli nee nañ biñ bi ñuy julli am na ndaw su ñëw jëlub xaal dem xam naa da jënd si waaye xëy na bàyyiwu fa bàyyiwu fa njëg ga góor gi daal sëlmal rek ne donga bi daal di koy joxoñ ne wan ko ni ko ndaw si jël na xaal waaye bàyyiwu fi njëg gi de xaarut daanaka daa sëlmal rek xel mi ndekete li mu julli lépp xel maa ngi ci xaal ji mu jaay ndaw si ñëw jël xaal beeg xaalis bi mu yóbbu te bàyyiwoo ko feeg yëpp bi mu paree rek mu junj xale bi na ko wax ko ne ko ndaw si yóbbu na xaal te bàyyiwu fi waaye gis nga donga bi toppoon ci gannaawam moo ko moo moo yar moo moo gàgganti sëriñ bi donga bi ne ko ah sëriñ danga doon julli wala da doon jaay xaal ah da doon julli wala da doon jaay xaal. sëriñ bi ne ah ay la yéwén dama doon jaay xaal de waaye sëriñ booba nee na moom booba la booba la julleem jag moom maanaam foofa la tàmbalee moom julli gu muy julleeti moom foofa la tàmbalee julleem di defaru moom waaw ah, moo tax seytaane booy julli dana ñëw lu ne mu dugal ko ci sam xel fu ne dana la fu yóbbu waaye dañu ne nag loolu maanaam nit ki xelum kiy julleeg xale buy jàng raam ñooyam da ngay dabi di indi rek fu mu rëccee nga dabi indiwaat fu mu rëccee nga dabi indiwaat Euh, teewlu sa julli dana tax sa julli defar defaru defar googu ngay julli defar sa julli nag def ko ni nga ko war a defe jox ko àq ji nga ko war a jox dana tax sa julli defar la kon mbokk yi euh, julli moom di ci wax duñ mënta yem ci benn jataay xam naa danañ ko jagleel beneen jataay waaye nañ fonk julli nañ gën a fonk julli dana ñëw ci jullik mbooloo danañ ko jagleel jataay spécial jullik mbooloo nañu fonk julli te di ko def ci waxtu ya danañ ñëw tamit ci waxtu julli waxtu wu nekk fan la tàmbule ak fan la yem waaye nañu fonk julli nañu fonk julli nañu fonk julli te di ko def nañ ko war a defe di sàmmoonteeg ay àqam di sàmmoonteeg wor ma ji julli am sàggana julli du du ëpp naa def de sàggana julli ëpp naa def bu yeboo nga xam ne boo koy def li ngay defal yàlla moom daanaka day neen te li nga bàyyi defoo ko moo gënal yàlla abdullah ibnu mas'ud nee na damaa laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw yàlla liñ koy defal lu ko ci gënal liñ koy defal lu ko ci gënal mu ne ko ah xanaa julli ca waxtu wa bu waxtu wi jotee loo jàpp nga bàyyi ko te julli mu ne ko lu ci topp mu ne ko xanaa baax ci sa ñaari way jur baax ci sa ñaari way jur topp sa ndigali ñaari jur sonn ci ñoom yërëm leen wekk leen suturaal leen baax ci sa ñaari jur mu ne ko lu ca topp mu ne ko xanaa jihaad ci yoonu yàlla mbokk yi ñun defe naa jullit bu nekk xam na jihaad ci yoonu yàlla grade bi mu am ak ñi mu màgge waaye julli ci waxtu moo ko ëpp doole moo ko jiitu moo ko jiitu baax ci ñaari waajur moo ko jiitu kon jiital li mat a jiitu li war a jiitu teg ca la ca war a topp loolu am xel la kon nañu gën a fonkaat julli nañu xam ne jullikat wàccuwaay bii la am ci lislaam ku koy sàggane yoroo diine ku koy sàggane yoroo diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na alsalaatu imaadu diin fa man aqaamaha faqad aqaama diina wa man tarakaha faqad hadama diin nee na julli mooy poto bi nga xam ne ni moo tëye diine moo ko taawu moo ko yanoo ku taxawal julli taxawal nga yow poto bi taxawal diine poto bi yenu diine yow moom taxawal nga ko waaye nee na ku ku bàyyi julli nee na xamal ne màbbu nga diine yow poto boobu yaa ko màbbu yaa ko daaneel yaa màbbu diine kon diine nekkatu fa kon nag ah, ëpp naa sàggane diine ci ponk lislaam yi la bokk waaye li ponk bi ci gën a rëy gannaaw ash-shahadatayni ponk lislaam yi xam ngeen ne juróom la gannaaw ba nit ki ba ca des benn nit ki na seede ne na saxal baati seede yi ak la mu laaj ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah na ko nit ki saxal ak la mu laaj julli julli koor azaka aj makka yii ñooy ponk yi nga xam ne ñooy ponki lislaam yi julli day jëf ji nga xam ne moo ëpp doole ci jëf yi ñuy jëfal yi jullit bi di def kon nañ ko fonk nañ ko gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax te di ko taxawee ca anam ya gën a rafet di ko defar di ko di ko sonne di ko teewlu buñ koy def di teewlu borom bi subhaanahu wa taala buñ koy jullil waaye di bàyyi xel ne julli moom yi kat moo ñu mën a yéegal garaat yu kawe ëllëg yowmal qiyaama kon danañ ci ñëwaat xam naa ne ci yeneen yi jataay inchaa allahu taala yàlla yàlla defal tawfiq boole ñu ca ña nga xam ne nii dañuy taxawal julli ci anam yey dëppook ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala boole ña nga xam ne dañuy defar seen julli seen julli di leen da leen di defar yàlla ñu yàlla boole ci ñooña hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ah. jagirga am dam samadam yow nagam yor galay bul tasiyakar samadom damala yonni ca ekol bapur ga am dam samadam yow nagam yor galay bul tasiyakar قدمي جاي قلبان غاو جاكا لسبان غور مال جنگل كتيا غلاوي بلتسياكا من يلوم